juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci xibaaru marax yi bokk na ca euh, ponk yi ca gën a fës euh, muy gaalu loocoo boo xam ne daal euh, dafa rek ami jafe-jafe foofee ci bël ba nekk ca diwaanu Ndar géej bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot juróom-benn fukk ci ay doomu aadama ñoo ci nekkoon juróom-benn ci ay néew gis nañ leen ñeent itam ñoo xam ne daal rawal nañu seen bakkan daañu dem ca ndax géej fekki ndax géej ngeen baal ma fekki fa Ousseynou Diop Fatma Touré euh, dañ koy fekki ji Parcelles Assainies foofee xam ngeen ne épreuve BFM yi euh, tey ji euh, lañu ko tàmbali CM unité 18 nag lu toll ci ñeenti téeméeri candidat itam jox nañ séddale nañ leen ci ñaar ci ay jury naka lañu def ak bés bu njëkk ba ak gune naka lañ ko gisee ci kanam tuuti Fatimata Touré dina ci dellu siwaat ñu wax itam mbokk yi ci assemblée générale bu waa euh, CNTS FC ak itam euh, sission ba nga xam ne daal am na fa ndax xam ngeen ne euh, Cour suprême moom dafa dëggal rek daal CNTS FC ci mbir mu mbaxaw njong moom mbaxaw njong nag muy sàkku rek ci Cheikh Diop mu daal di xool lu jëm rek ci mbir moomee ak taxawaay ba daan ci léegi léegi ak Ibrahima Kane mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci programme yu télévision Futur Média ñu leen di dalal jàmm yi ci xibaaru euh, marax yi doore ko ak ni ñu leen ko waxee gaaloo ca boobu daal di rek euh, euh, ami jafe-jafe foofee ca bëlba ca diwaanu Ndar Géej ay doomi aadama yoo xam ne seen lim ñu ngi toll ci juróom-benn fukk ñu bëggoon a jaar ci waax yi dem biti réew ñoo ci nekkoon juróom-benn ci ay néew gisees na ko ñeent ñoo xam ne itam rëcc nañu mbir mi nag mu ngi marine nationale joxante loxo ak sapeur pompier ñu ngay wëyal liggéey ba ne ñu sax ab enquête bi nañ ko foofee ca diwaanu Ndar Ndar géej dañu fay fekki Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo fa toogal télévision Futur Média tey jii bu wóoru 5h30 jotee ci bël bu Ndar bi ay migrants clandestins la yaboon ci xibaar yu njëkk yi nga xamante ni jot nañ ko seeni lim toll woon na ci juróom-benn fukk ñoom ba ñu suuxee ñu daat koy yëgal ñi di sapeur pompier ñu ñëw ci bërëb bi dispositif bi ñu yore fukki nit mujj nañ leen gis juróom benn ya dañu mujj faatu ñeent ña nag dañ leen mujj sauvé ñi nga xamante ni dañu mujj faatu ñu yóbbu leen ci morgue bu hôpital bu Louga ñeent lañ fa yóbbu ñaar ji nag ñu mujj leen indi ci hôpital régional bu Saint-Louis l'enquête bi nag ñu ngi koy wéyal ndaxte bëgg nañu xam gaal gi fan la jógee te loolee lépp ñu ko mën a wax mooy ñi nga xamante ni tey jilee mooy ñeent ñi ñu sauvé xibaar yi nga xamante nag jot nañ ko ñaar ci ay version la ñu am nee nañu gaal gi ca Kafountine la jugee beneen version bi nee ñu gaal gi ci Joal la jugee mu mel na kon jamono jile l'enquête bi la ñuy xaar ngir ñu mën a xam gaal gi fan la jugee ak ñaata nit la yeboon Ousseynou Diop ci ay leeral ñu des ba tey ci xibaar yi ak itam mbëkk moom yi nga xam ne dafa mel ni euh, lu takkaar naa se jamono ji foofu ci diwaanu yaraax ne ñu atum 2005 ba suñu joon yàlla tey ji euh, lenn ci ñi euh, dem biti réew foofe sax la ni déparé dugg ci waax yi sóobu ci wutali bitim réew ñu ne nag jamono ji la ñu gis rek mooy ñoom dañoo am jafe-jafe lu jëm ci liggéey bi moo tax ne ñu lenn rek la gis ñenn ñi mooy jàll ba dem foofee ca Espagne Abi Faye ak Alioune lañ ci àndal ci ay leeral. muy kàddu goo xam ne ñu bëri ci ñoom ci nappkat yi moom la ñuy yëkkati fii ci waax yu yaraax fii nag ca atum 2005 ba tey noon na fa ñuy déparé di wutali tugal. di jël gaal gi ci biir mbaar bi lañu toog di fi daje léeg-léeg fii la ñuy féexloo ca jamono ji nga xamante nit émigration clandestine bi ma ngay gën di woy di def ay tuuxi doona fii ci senegal waaye ñoom ñu ne tey lañ gën a mën a sawar ngir dugg ci géej gi dem ngir seen i ëllëg mën na yànji keni ku war a dee fi nga war a dee fa ngay deewee parce que lii sa métier doo si ragal yéen journaliste yi foo leen déggoon ne ay balang fay tàkk da fay dem diggante fii ak cinq jours rek gaal tëmbee na fi fi ak cinq jour yi passé nii rek gaal tëmbee na fi. jëlee Espagne. dem Espagne. yi dem yi dem àgg yi dem àgg li ko tee mu mel ni 2006 bëriwul. fii lañ déparé. am na yu déparé fii am na yu caaro yi am na yu sans départ fu am làqatukaay ñu mën fa làqatu dañuy làqatu dem. waaw parce que kenn ku ne xam na ni moment bii nii gars yi ñu ko médiatiser clandestin immigré yi kaw ak yi si ab yëpp ñu ko médiatiser te xam nga lu si am dafa bëri moo tax léegi gars yi ñuy def dañ koy xool ñu koy defee ba nga xamante ni secrètement ni dem dem te du am benn problème. géej gi ngir mu dundal leen yombatul jamono ji waral na gaal yi tege fi moo xam gaaluk ser la loocolo wala monofilament yooyu yëpp mu ngi ci tefes gi nappkat yi. ne ñu ngi wër pexe ngir mën a génn ci li ñuy dund. ala kulli àll nit ñi dañuy dem bi ñu tabaskee ba léegi nii gaal yaa ngi nii benn gaal demul géej lan la nit ñi di dundee suuf. géej gi amatul jën amatul daara da ngay ñuy tëmb si gaal yu ndaw yi di daw ay cent kilomètres cent nangam kilomètres te duñ ci génn xam nga loolu dèjà dafa metti donte sax ak comité jógoon na ngir xeex émigration clandestine gi waaye lii de tur wi doo nga fi des te la ko taxoon jóg bokkoon na ci ngir xeetali ñoom ñooñi. gannaaw ñooñu ñëpp dañuy dóor ñooñu ñëpp ay dóor la loolu du gëm-gëm dóor la dóor. parce que pour man bu ñu fi tegee communiqué war nañ mën woo jeunes yi chaque fin ñu def benn réunion am lu ñu waxtaan ak ñoom am lu ñu teg seen loxo. pour am financement pour réinsérer jeunes yi pour réinsérer jeunes mooy pour encadrer leen mais pression sociale moom yóbbu à ce que mënuñu téye kenn mënuñu téye kenn mooy tey jeunes yi am nañu kii mais dañ leen war a ñu bëri ci ndaw yoo doon def immigration clandestine Kafountine mooy bu njëkk ca fa ñu déparé donte sax tey lañu ñu gën a mën a wayal di tukki ci anam bu jaar yoon. aywa Abi fay ñu euh, jaajëfal ko bu baax des ba tey ci mbëkk moomee ak jafe-jafe yi nga xam ne euh, mën na ko jur ñu ne nag ci diwaanu ndukkumaan daal euh, gis nañu ne ndaw yi dañuy faral wala boog ñenn ñi dañuy faral di jël gaal ba tax na daal ñu daal di fa defoon ci ay koppar yoo xam ne dañu leen ko jagleel muy ay financement ngir ñu mën caa liggéey loolu nag du suñuy kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowee ñoo ko wax ñu daal di sax amal ab caravane boo xam ne ngal la ñu toog ci réew mi foofee ca diwaanu Ndukkumaan la Amadou euh, euh, Hamidou Mbaye euh, yëkkati kàddu dénk ko Ndeye Awa Bey ak Mame Goor Wilane GMD a, dans le cadre de ses activités et de, sa, et de son partenaire technique, notamment l'Union européenne et la coopération, mais espagnole, mis en place des fonds nationaux et des fonds régionaux. Les fonds nationaux sont destinés aux ONG qui interviennent dans les questions migratoires. les fonds régionaux sont destinés aux migrants de retour et aux potentiels migrants. Dans cette région, nous avons eu à procéder à une sélection de projets de 75 bénéficiaires des migrants de retour des potentiels migrants. ñu jégalu bu baax ci élément bi mu mel ni ci nasaraan la euh, dinañ ko amaat sax ci yeneen jataayu xibaar ñu des ba tey ci xibaar yi ak beneen ponk bu ñu leen junjoon xam ngeen ne euh, BFM bi tey jii lañu ko sóobu ci atum 2023 ca Parcelles Assainies euh, centre CM unité 18 muy centre boo xam ne ay gune dañu fa nekkoon ñu jege nag ñeenti téeméer ñu xaaj leen ci ñaari jury ba nu génnee ca épreuve yu njëkkee lañu wax daal mooy mbir bi def nañ ko ci seen gafaka Euh, ñenn ña sax ña ngi koy jéem caa indi ay leeral Fatima Touré ak Amadou Ba ba nu gëjee ca classé yàgg na dem nañu xool gune yi lan lañu wax. lu ëpp ñeenti téeméeri candidat ñoo sëgg ci épreuve BFM yi fii ci CM 18 bu Parcelles Assainies xale yi nag ba ñu génnee def li nga xam ne nag moo di épreuve français bi ñoom ñi de nag dañoo jàpp ne épreuve yi abordable na. sujet yi neex na instant yi élèves yaa ngi génn ñu naan ñii def nañ ko ñii defuñ ko am na ñoo xam ñi naan neex na ñii di naan neexu. épreuve yi ah saf na saf. Hmm. ba parce que man moo gën a yomboon si man moo tax mu jóg. tane na daal pour cette année. waaw. lan nga def ci sujet yi laa jël quoi parce que moo gënoon. dal sama xel quoi. abordable boobu ñu wax sax moo tax ku ci nekk rek di joxe commentaire di expliquer sujet bi nga xam ni moom nga jël am ci nag ay compréhension. dañoo joxoon ñaari sujet sujet au choix benn ngay traité les sujet bi da doon wax si Ba livre bi amitié bi moom ak Aïssatou les sujet wax si bànneex yi ci matériel yi ak ci homme yi loolu lañ doon def sànq. Hmm, man man sujet deux laa ah sujet deux gis naa ne neex na parce ñoo koy dund chaque jour. jour. Ah, parce que chaque jour ñoo ngi gis xale jigéen yi ni ñuy def ñoom ñëpp ñoo ngi basé wu ci matériel di gis yaakaar ne góor bu amee xaalis moom lañu war a topp jigéen yi tamit gis nga loolu moo tax mooy ci actualité bi. oui. man sujet la tànn. Ah, parce que héritage euh, am na ay biens foofu noonu te ça part de héritage daal. mën na mën na dee ay oto mag ay biens nga mën ko jël pour kii nii def sa bonheur. Mm-hmm. Euh, te man gis naa si loolu ndax man dund naa ko quoi. waaye sujet deux moo xawoon tane quoi ndaxte foofu ndaxte foofu le bonheur chez l'homme lañ doon wax te xawoon na yomb tuuti si ñun ndaxte bonheur yaakaar naa ni que si kii si famille lay nekk bonheur yaakaar naa ni que nag si si famille ça si famille lay ñëwee quoi ndaxte boo gisee boo gisee boo gisee sa yaay comme nga jox ko dara nii day kontaan ba pare day am bonheur si yow. loolooy bu na pour man déedéet affection la waaw affection si sa yaay la ak sa papa ak sa famille man loolu laa yaakaar. ci xayma nag ci Sénégal 189 361 ñoom ñi le nag ñooy def BFM jury yi nag ñu daat koy tass ci édition 2023 bi ci 1276 centres yi nag toll ci 1135. Fatima Touré ndongo yi yàlla bu seen yaakaar tas ñu des ba tey ci BFM bi euh, foofee ci diwaanu Ndoukoumane ñu ne junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett ak juróom def euh, tàmbali nañu soobu nañ ci bile examen daal ñu ne euh, def nañ ko itam ba mu jaar yoon ndax jël nañ ñoo xam ne ñooy surveillant yi maanaam ñiy xool gune yi ci classe bi di leen saytu ak lu ni mel lu jege téeméer ak juróom fukk bu nu sukkandikoo ci IEF bu Kaffrine du du Fafana daal na mbir tëddee mu ne am na ci njoxtu bu rafet ñu teewlu kook Ndeye Awa Bey ak euh, Mame Gor Wilane ñoo toogal télévision Futur Média ca Ndukumaan ak di ko wax. bañ ñëwee centre yi ñu visité luñ fa jot a gis vraiment doy nañu doy nañu bu baax parce que xale yi ñëw nañ lii mu absent yi takkuwut. Euh, professeurs yi nga xam ne ñoo war a corriger également ñoom ñëpp teew nañ ñu nga xam ne seen épreuve la ñuy déroulé surveillant yi yi nga xam ne ñoo war a surveiller également ñëw nañ si ay nombre boo xam ne empêché wul déroulement bi surtout que dañoo jël dispositif boo xam ne centre bu nekk dañ ko majoré pour euh, quand jël en matuwaay yu si war bon suñ ko xaymaa si niveau département bi wax naa ni si département Kaffrine am nañ fukki centre fukki centre yi juróom benn moo nekk si biir Kaffrine yeneen ñeent yi ñoo nekk si àll bi donc maa ngi wax par exemple Nganda am nañ fa benn jokkul am nañ fa benn Bulel am nañ fa benn ak Ñibi donc lii mu ndongo yi def examen yuy jongante ñu ngi toll ci junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukki yu manqué juróom donc jàngalekat yi nga xam ne ñoo war a surveiller seen lim mu ngi toll ci téeméer ak juróom fukki yu manqué ñaar secrétaire yi nga xam ne ñoom ñoo war a gunge président jury bi ñoom seen liim mu ngi toll ak juróom fukki yu manqué ñaar professeurs yi ñu mobiliser pour correction yi. mu ngi noonu BFM bi euh, limu gune yi ci euh, bokk ëpp nañu téeméeri junni ak juróom ñett fukk euh, atum ren jile jigéen ñi nag ñoo ci ëpp ndax téeméeri junni yi ak juróom-ñeent ay gune yu jigéen lañu mu mel ni daal fépp ci réew mi ba ci gox yi fasantikoo yi daal examen boobu di BFM ñu ngi koy amal ci jàmm ak salaam Fatou Bintou Konté Alioune Diagne ci defal ab taxaw seetlu. l'examen BFEM tàmbali na tey ñu toll ci 189 361 candidats ren nag li mu jigéen ñi mu di lim bu ëpp toll nañ ci lu ëpp 109 fii jamono ji nag ñu seetlu ne jigéen ñi dañuy faral di bëri lool ci examen yi léegi. Euh, candidats yi ñu am am nañu téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yu toftal euh, euh, juróom ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn. ci lim boobu limu ndongo yi xale jigéen yi ñoo ci ëpp ndax ñoom eh, dinañu constituer boo ko jëlee ci pourcentage bi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar eh, ci pourcentage eh, ci limu jigéen yi. loolu tamit euh, lu ñu seetlu la ci fan an directrice cabinet ministère de l'éducation di ñu xamal ni nag lépp yemb na ci bépp centre bu nekk fii ci réew mi lee lépp li fa waxoon def nañ ko ba mu màcc euh, jot nañu euh, information yi ci ci ci yeneen gox yi mooy académie yeneen yi que ñoom ñëpp lu ñu signalé mooy yëpp yemb na ñu ngi def seen examen sans problème tout se passe bien te même ci région yi nga xam ne ñoo nekk surtout ñu ragaloon mu taw ah nee nañ daal tawul kon ñu ngi sant suñu borom donc di ñaan yàlla pour mu continuer ni mu commencé ni ni mu dooree par ak résilience. fii ci Ndakaaru nag centre yi nga xam ne moom la ñu jot a jaar lépp yemb na fi bu fekkee ni fee ci cour Sainte Marie de Hann la wala lycée ba nga xam ne moom moo nekk ca Yaraax ndongo yi ñëw ñu def ci li nga xam ne moom moo di seen i l'examen. yu jaar yëpp li ñu chef centre yi wax président de jury yi aussi confirmé nañ ko mooy disposition yi ñu waroon a jël yëpp ngir euh, examen bi jàll si yoon jël nañ ko moo xam ci wàllu kaaraange la. moo xam ci wàllu euh, électricité la ci biir salle de classe yi dafay dafay soxla aussi ñu am électricité pour que élèves yi aussi def seen examen ci conditions yu mucc ay que épreuve yi commencé nañ ci jàmm euh, amuñu benn rëq-rëq commencé nañ ci heure bi ñu war a commencé épreuve yi sécuriser nañ leen cela veut dire que fi ñu leen garder garder nañ leen garde boo xam ne kenn mënu ci am accès. Euh, Euh, président jury yëpp ñu ngi président ñoom. fi muy éclairage bi aération saal yeeg lépp defaraat nañ ñetti fan ñu fas yéene ko amal li nga xam ni moom moo di BFM mu di brevet de fin d'études moyen examen bi nag jamono ji ñi nga xam ne ndongo yi ñoo nekk ci diggub déew mi ñoom ma ñoo ci sëgg. Fatou euh, Bintou euh, Konté gannaaw bu nu jógee ci euh, examen boobu di BFM ñu wax ci wàllu politique ak ñenn ñi ñoo xam ne waa PASTEF lañu te nee ñu jamono ji caabi da leen féete gannaaw bu nu sukkandikoo ci ñoom nee ñu seen parti boobee tey jee la gën a dëgg tëjee itam lañu gën a dool booloo doon benn say naam am nañu jàpp rek ne ki nga xam ne mooy seen njiit di Ousmane Sonko daal ci jongante palub njiitu réew bokkam mën naa taqasu Diouf ci sori Cheikh Diop ak Ba ñoo seeti woon ñu seen xam-xam maa ci wàllu politique ñu euh, teewlu euh, liñ ci xalaat. bëri na ci ay ñooñ yoo xamante ni nag ñu ngi bootu ci Pastef ci de jamono ñu daal di leen tëj ci kaso bi bi ci mujj bokk na ci tëjum kasoom Birame Souleye Diop yenn ci ay arrestation yoo xamante ni dina am njeexital waaye du tax benn yoon parti wile daal di nërmeelu. boo ñu xool taarixu histoire taarixu Sénégal maanaam ci wàllu politique maanaam lool lu fi yàgg la mais du tam lu normal du def fi yàgg rek da dafa dafa normal booy xool parti bu mel ni PAI parti africain de l' indépendance euh, ay jamono euh, amoon nañ fi ay problème Senghor ñu arrêté ci ñu bëree bëri bëri bëri bëri je pense que loolu bokk na ci li nga xam ne nii moom moo tas parti boobu parti boobu nekkoon un parti historique euh, un un des premiers partis du Sénégal à l'époque euh, pour le cas de nag bu ñu koy xool ci contexte bi ñu dund nii Pastef am dafa mel ni comme kaawu PDS parce que c'est le même principe bi bi bi le régime appliqué au PDS moom lañuy ñu appliqué au au Pastef mais léegi loolu li mu indi moom mooy que ne est-ce que dina réussir mais bu ñu xool le rapport de force sur le terrain. euh, le rapport de force en matière organisationnelle, mais également en matière de mobilisation, le passé est très grand parti. Mmh. Maintenant, est-ce que, par exemple, là, si la tête du parti est ça dina empêcher parti bi mu am ay possi dina ko fragiliser dina mën a tax du mën dem élection mais je je ne pense pas parce que. moom Ousmane Sonko ñenn ci ay ñoñam xam na rek ne daañu ko tab fii ak ñetti fan lu soxal itam teewaayam ci mboobu leen ndaje dina doon ay jafe-jafe. ah dina fa teew wala du fa teew man damaa jàpp ni dina fa teew mais jëmmam du fa teew ce sera du virtuel lu tax ma ne ce sera du virtuel damaa jàpp ni Ousmane Sonko këram lay toog ak xarala yu yi. mu mën a mën a wax ak ñi nekk fële na leen saa moom parce que Ousmane Sonko mënul génn mënul dem ñu koy seet si sax dañuy am autorisation démb rek dégg nañ Pierre Atepa Goudiaby mu ni ministre de l' intérieur moo ko autorisé pour mu dem seeti. xam ne ni c' est des lendemains électoraux calme. na ku nekk xoolaat boppam que les gens sachent raison garder nañu xam ni élection bi dina am te dafa war a am Ousmane Sonko bokk day am ñàkk bokk dafa war a am. ñu bëri ci ñoo xamante ni nag ay ñooñ lañ ci euh, Pastef bokk na ci liñ leen di toppee maanaam daal di rek génne ay xibaar yu wóorul outrage à magistrat ak yenn ci ay jëfin yoo xamante ni nag du tax jàmm daal des fii ci réew bu Sénégal wala sax yenn saay ñu rek daal di jokkar bi baaraam njiit mu réew mi. aywa Cheikh Diop ñu des ba tey ci xibaaru marax yi ak Juan Branco mi nga xam ne ministère de l'Europe et des affaires étrangères moo ko euh, kalaame foofee ca seenum réew ndax euh, ministère ba dafa euh, tuumaal Branco daal ne lu jëm rek ci délit bi mu def maanaam daal mise en danger de la personne nit ki lu jëm ci wàllum kaaraangeem daal xaw a taq suuf ñu ne nag mbir moomee bu nu sukkandikoo ci article boo xam ne daal dafa tënk seen code pénal euh, ci fàttali rek Juan euh, Branco euh, li mu wax rek daal moom moo ne dafa gis ay militaires yoo xam ne ay doomu France lañ ñu nekk ci commandement bu gendarmerie bu Sénégal Mamadou Fall muñ ci gën a indil ay leeral. Juan Branco ministère de l'Europe ak affaires étrangères yi nar ko yóbbu fa mbaxee na doone benn événement yu mois de juin ci Sénégal am ay rebondissement kon ci plan judiciaire jëwriñ ñi ñu dénk wàllu affaires étrangères yu Europe yi moom nee na dana porte plainte ki am te ni moo di avocat Ousmane Sonko bile moom Juan Branco fàttali ni dafa porte plainte crime contre l'humanité gannaaw nag ñu ne répression yi nga xam te ni amal nañ ko ci manifestation yi gannaaw bi ñu euh, daane kii di opposant sénégalais bi di Ousmane Sonko moom Juan dafa joxoñoon baara baaraamu tuuma rek ñaar ci doomu France ni daal dañoo bokk koon ci yooyee ba tudd sax seeni i tur communiqué li nga xam te ni moo di seen i données lu ci mel ni numéro téléphone ak matricule kenn ki. loolee itam mu dolli ci euh, juróomi agent yoo xamante ni yu France lañu mu tuddoon seen tur gannaaw ba muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi mu nekk nag ay kaddu yu ëpp lool tax ba ministère affaires étrangères yi ñoom daal nee nañu lu ñu bëgg rek moo di avocat bile ñu daal di koy teg ci yoon avocat bi moom moo waxoon euh, te tegu ko benn yoon ci yoon nii kon bokk nga xamante ni euh, ñaari doomu français yooyee dañ ko bokk kon ci nga xamante ni moo di répression yi ginnaaw tweet bi nga xamante ni génne woon ko laata muy taskatu xibaar yi Juan Branco moom nee na woon dafa identifier ay militaires yu français yi nga xam te ni dañoo dugg ci au commandement bu gendarmerie bu Sénégal loolee nag kon rek di wane ab rôle boo xamante ni France da ko def kon ci répression violence bi te loolee le ministère bi mënta nangu ministère bi nag porte plante ngir kon application article quarante bi nga xamante ni dafa ni moo leen autorité wala fonctionnaire boo xamante ni da nga gis crime wala délit euh, da avocat bi di Juan Branco daal di réagir ci Twitter ne kon masque yaa ngay wadd France mu ngay porte plainte moom doomam moom dëkkam moom peuple am moom patriem kon loolee rek dafa gis ni kon plainte boobee dañ koy jéem a xoxatal te loolee du jàll tax na rek kon nee na réaction bi nga xam te ni moom la ministère bu Europe am day wane dëgg-dëgg li nga xam te ni moom la joxe comme information moom Juan Branco aywa Mamadou Fall ñu wax itam ci euh, leneen mu li leen ko waxoon ci bopp xibaar yi CNTS FCA ñoom nag dafa mel ne Cour suprême daf leen euh, dëggal rek euh, ci njiitalul Baxaaw Njong ñoom ñu sàkku ci Cheikh Diop mu daal di xoolaat lu jëm rek ci turu ab kuréelam ndax ne ñu daal mën naa indi jiixi jaaxa ñu ne sax moom daal mbir moomee tax na ñu sàkku ci moom mu xoolaat ko seen assemblée générale itam ñaawlu nañu fitna gi fi amoon yàqu-yàqu yi naka noonu ñu ngi sàkku ji nguur gi nga la liggéeykat yi ci amoon jafe-jafe ñoom ñu euh, bañ leen a fàtte euh, fàtte euh, ci jàppale gi amadu Ba ak Ibrahima Kane la ñuy àndal ci ay leexal. ginnaaw bi leen cour suprême joxe dëgg nag ci ñaari tuuru CNTS FC yi ba xaw njong ak i ñoñam jamono ji nag li ñu bëgg moom mooy Cheikh Diop dakkal loolu nga xamante ne moom mooy organisation te mu koy duppee itam CNTS FC. comme Cheikh Diop nangu na ne xam nga fi mu nekk. bëgg a bëre bañ bëre la woon léegi bëre na daaneel nañ ko nangu mu bañoon ñu daaneelaat mu bañ di contesté ñu daaneelaat ñetti yoon fi mu nekk mu yóbbu léegi nag ñu yóbbu ko ardo léegi nangu na. sañatu la bañ. nangu na léegi fexe na ba fi mu nekk tuddeetul confédération nationale des travailleurs ma nax nit ñi di nax opinion bi di nax ay travailleurs parce que ñun yëguñu fenn fu mu defee congrès. yëguñu fenn fu mu defee assemblée générale te fexe na ba am récépissé bu bees boo xam ne tuddeetul CNTS FC confédération numéro récépissé boobu mu doon xeexe muy 237 léegi ñun lañ ko jox. beneen ponk boo xamante ne bokk na ci ordre du jour assemblée générale bi mu di fitna ak toj-toj yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fi ci ndorteelu weeru juin. CNTS FC authentique di sàkku ci nguur gi mu taxaw bu baax a baax liggéeykat yi nga xam ne dañ cee loru. état bi war na leen indemniser travailleurs yooyu nañu fexe ba ñu dellowaat ci seen liggéey. na ñu fexe ba entreprise yooyu aussi ñu pérenniser ko moo di entreprise yooyu ñu defaraat ko ba jikko bii nga xam ne du jikko sénégalais ñu dindi ko fi état bi jëlaat seen responsabilité pour ñu ñu veiller ci sécurité nit ñi sécurité nit ñi ak sécurité bien bi. ngir nag jàmmi réew mi ñoom CNTS FC di sàkku ci acteur politique yi yëpp ñu ànd ak dal te sàmm li nga xam ne moom mooy suñu ndëgërlaay ñuy sàkku itam ci Cheikh Diop mu delloo leen lépp loo xamante ne CNTS FC moom moo ko moom. Ibrahima Kane mu nekkoon assemblée générale bu CNTS CNTS FC authentique ci njiitalul Baxaaw njong ñu wax itam ci màggal ak Touba atum 2023 xam ngeen ne li ci des matut ñaari weer mu mel ne nag jafe-jafe bi ñu am ca dëkk ba fi mu ne nii mooy lu jëm ci wàllum euh, mbënn mi ndax ndox mi itam bëri na wala assainissement naka noonu xam ngeen ne itam euh, napp bi na mu jegee euh, ba tax na rek daal muy ponk yoo xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre général des Mourides yëkkati yëkkati na ko euh, ca CRD ba ñu amaloon ca euh, diwaanu Njaareem moom kilifa gi mi ngi sàkku rek euh, ci ñu yore liggéey ba ñu matal ko laata ñuy dem ci bésub sant boobu Cheikhul Khadim woote ñu teewlu ko kàddu yi Talla Samb la ko dénk. ndigalul ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fi jumbi Serigne ci kaw suuf. jataay bii ñu du ko def ci ndigalam. ak turam waaye ñaar yi nga xam ne rek bëggoon naa cee junj ba dañ cee accès bi bu njëkk bi mooy ndox mi ak assainissement bi ndax ndox mi xëy na fan yee forage si paanu na ba ñoom def nañ ci jur ba yu ci bëri wax nañ ne incha allah maanaam incha allah ne lu ci ëpp baax na liñ ci liñ ci war a war rek mooy juróomi forage yi nga xam ne moom lañ bëgg leen ko xëy na ñetti wala ñeenti ak vraiment. li ci des ci màggal bi daal ñu soññal ci ak jéego yi nga xam ne ko dëgg doon ba ci des mooy entreprise bi nga xam ne moo yor assainissement bu Touba ndax ngoon bi defoon na ci jéego ba tàmbaloon na liggéey bi waaye liggéey bi it xaw naa yàq tuuti ñoo tam ñu ngi ci sonn ñu dem cee def ci ak taxawaay ko wala ñaar wala ñett weesu ko waaye dëkk bépp maa ngi noonu loolu daa ma ko bari na si ñëwoon suñu faam ñoo xam ne daanaka génn nañ si liggéey gannaaw bi noonu la tasaaroo ci dëkk bépp moom daanaka xaw naa yaatu kon forage bi ñu ci defoon daaw war nañoo góorgóorlu ba defaat ko ndax bu ñu ko rek xam naa ren ñu génnoon ñu génnoon ci indi daaw ren ñu génnaat dana ndax bàyyi na lool ci terre bi ñoo xam ne ku ci jaaxle rek dana ñëw ci nga ne ñëw bés boobu lee nañ ko euh, fekkee mu ànd ak xéewal ñu euh, santaleeku ku tedd ki boromam ci euh, natt boobu lee mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ci xibaar yi jaajëfal leen ci seen safo seen kóolute fii ak ay simil yu néew Chérif dina fi teew dégtal leen xibaar yi ci français jaa ngeen jëf ci seen cofeel jàngeen jëf ci seen safo ak seen kóolute panaanum jàmm thank you